suratul kawsar su doon ki toftaleeg alquran mi ngi wàcc gannaaw suratul aadiyaati suratul kawsar mooy saar wi gën a gàtt ci alquran buñ la laajee saar wi gën a gàtt ci alquran mooy suratul kawsar ñetti aaya la soo jëlee saar wi gën a gudd ci alquran mooy suratul baqara juróomi xisib la saar wi nag di suratul kawsar ah, yàllaay wax yonantu bi xéewal gu gum ko defal xéewal gu rëy gu ñuy tuddee kawsar boo demee dañ ne kawsar alam la ñenn ñe ne wasfu la ñi ne melo la ñi ne tur la moo tax firéem kawsar rek moom kenn ni ko borom xam-xam yi ulamaaw tafsir yi firee xëpp na ñeen fukki firi kawsar lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba mu ëpp fukki ñeen fukki firi soo jëlee ikrama dafa ne kawsar mooy nubbuwatu nubbuwatu gi yàlla jox yonantu bi nga jël ku ñu tuddee xasan mu ne mooy quraan xal quraan la nga jël xasan ibnu fadli mu ne maanaam mooy tafsirul quraan firi mi ñu firi xal quraan jëlee ca yonantu ba ca saxaaba ya ca taabiina ya ba ca borom xam-xam ya ku mel ni maanaam aboubacar maanaam ibnu iyaas moom dafa ne kawsar mooy saxaabaam yu bëri yu tedd yi yim daan wax ne ashaabi kan nujuumi bi ay ayihim miqtadaytum ihtadaytum ibnu kaysaan dafa ne kawsar mooy islaam ñii ne kawsar mooy yëkkati gi yàlla yëkkati turu yonentu bi lëkkale ko turam ci war a fax naa làkk zikraka ñii ne mooy nuurul qalbi ñii ne mooy shafaatul kubra gi ko yàllay jagleel ëllëg kon noonu nga koy toppee ñii ne lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba muy ñeen fukk yu wuutee waaye nag boo jëlee kawsar ci baat bi mooy tekki xiw wu bëri rek xiw woo xam ne dafa bëree bëree bëree bëri ba kenn mënu koo lim lu kenn mënta lim ko mooy kawsar waaye nag boo ko jëlee ci firéem yonentu koy laaj ne ko waaw kawsar mooy lan mu ne ko ak dex la ci aljana yàlla moo ma ko dëxal xam na riwaaya ko wax dafa ne ah, ata niihi laahu fii dafa ne waada niihi laahu yàlla dëxal na ma ko bii dafa ne jox na ma ko mu ne ko nag kaas yañ koy naanee kawsar moo tolloog biddiw asamaan yi ndaw kaas yu bari kaas yañ koy naanee moo tolloog li mu biddiw yi mu ne tamit ci beneen riwaaya kawsar moo gën a weex meew moo gën a neex lem ku ca naan nag dootoo marati ku ca xas naan dootoo marati boo demee ci riwaayaat yi nag pour dëppale ko dafay am yoo xam ne riwaayaat yi wane ne dañ cay naan avant ñuy jéggi siraat am yi wane ne dañ cay naan gannaaw bu jéggee siraat euh, soo demee nag imaamu Qaradaawi ni mu ko ni mu ko toftalee ni mu ko méngalee dafa ne daal démontable la léegi-léegi dañ koy dañ koy monter fii euh, afan ñuy jéggi siraat ñi naan ca buñ demee ba jéggi siraat ñi démonté ko yóbbuwaat ko ca foofa ci xal jaana ñi naan ca moo tax nekkul benn place day nekk fii ba ci kanam yàlla démonté ko yóbbuwaat ko beneen place waaye danga la kulli xaal ku ca naan dootoo marati amoon na benn góoru nitu yàlla dafa gént rek naan ca ñu ko daan tuddee maam Omar Sakho dafa gént benn bis rek ñu nandal ko kawsar moom nee na ba ni mu génn àdduna maratut ku ko jox ndox dana a rus rek ne nii tiimale ko gémmañam ba nga koy gis mu lay gis rek ba nga ne naan na mu delluwaat la pot ba kon dégg boo xam ne nit gént rek naan ca moom maratut kon ku ca naan foo jëm yàlla nañu ci yàlla nandal yàlla nañu ci yàlla nandal kawsar moomu nag li tax yàlla wàccee ko wax ko yonent bi sababu nusool bi mooy doomam moo génn àdduna di xaasum nga xam ne mooy taawam bu góor ba mu génnee àdduna nag Aasi waa Waa'il nag kontaan ca ak mboo kàngaami xéeféeri sa naa diidu Qurayshin ya ne ay yonentu jarta noono benn doom ju góor la xamoon génn na kii kay buy génn àdduna rek mbiram yem fa ndax ko xamul ndono la tuddee ko ne ab tar la nit ñi dañoo soxor wax loola yonantu bi yàlla ne ko inna ataynaaka al kawsar naa la jox borom xam yu bari ñoo xam ne yëpp sa doom lañ naa la jox ay sahaba yu bari ñëpp sa doom lañ naa la jox ay taabiina yu bëri say doom lañ danaa la jox maanaam waliyu yàlla yu dul jeexati sa yu say doom lañ danaa fi bàyyi alquran mu des fi ñu koy jàng ña koy jàng say doom lañ yonent bi mooy baayu ñëpp di baayu xeet wi xeet wi yëpp doomam lañ kooku ju kooku jërimut kon kooku tumurankewut lim nekk baayu xeet wee tax ba mu génnee àdduna soxnaam ya kenn doonu wut leen ndax soxnaam ya suñuy yaay lañ te nit doon doonu yaayam yonent rek moo génn àdduna soxnaam kenn doonu wut leen xoolal ba muy génn àdduna sayyidatuna Aïcha fukki at la am ak juróom-ñett booba dundam mi ngi ci xayu mu dem a dem a dem dund dund dund ba am juróom benn fukki at ak juróom benn ci dundam mosta toog ak benn góor ci kaw lal looloo tax ndax kat euh, eh, soxnaam yi ñooy yaay jullit ñi nit mënta takk yaayam kon looloo tax kon kon kooka kay wax dëgg yàlla kon bàyyi ñëpp la kon bu génnee àdduna benn doomam rek li mu dese ci ay doom du jeex waaye xoolal tamit ki ko doon wax attar moom jàpp ne am na ay doom yu dul jeex xoolal lim am ci njaboot ni mu bëree waaye kenn xamul leen ku la mën a limal doomi Aasi ibnu Waayil amut waaye xoolal yonent bi tey tabaarakallaahu surafaaw yi foo dem fekk leen ñi nekk seen leer di leeral kaw suuf te ñoom ñëpp mu soqee ko ci leer ak Seydina Muhammad yàlla moo tax bërile amul solo barkeel moo am solo xoolal yonent bi dafa barkeel juróom ñaari bant la ko yàlla dénk juróom ñaari bant ya ñeent ña jigéen lañ saydatuna Zeynabu saydatuna Roqiyatu saydatuna Ummu Kulthum saydatuna fatima góor ña mooy xaasum abdullahi ibrahim abdullahi mi ak xaasum mii ak ibrahima mii dañoo génn àdduna njëkk ñuy mësuur takkuñ sax soxna waxuma la bay am doom ñett ñële di saydatuna zeynabu ruqiyatu umu kulsoom amuñ ngirte lu continuer am na ki ñu am doom ñu amaat doom waaye mujjuñ continuer dafa mujj ngirte ga am foofa kenn rek moo ci am doom yu continuer ba tey meññi surafaaw yi ba koo dàq mu yóbbu la ci moom mooy saydatuna fatima kon dama ne bëri le barkee la ko gën yonentu bi dafa barkeel loolu la ko yàlla defal moo tax yàlla ne ko kaay ma wax la li ma la jox joxagut ko ko sax waaye yàlla lum dële ak lum def ba pare ñoo xem yàlla du la wax mukk danaa la jox ngay topp ca gannaawam di daw jox ma jox ma am na koo xam ne ni bu la danaa la jox dese nga beneen coono da nga topp ca gannaawam di daw danga nga ñaan da nga ñaanlu ne li ma wax yàlla na ko def waaye yàlla moom bu la danaa def rek moom jàppal ne def na ba pare moom lay wax si nii moo tax mu ne innaa naka ñun yàlla atay naaka jox nañ la joxagut ko ko waay li taxaquqi wuquuhi mu ne innaa naka ñun yàlla atay naaka jox nañ la alkawsara kawsar léegi nag fa salli na nga sax dàkk ci julli li rabbika ngir sa borom am na kuy julli te yàlla taxul yow del julli te yàlla tax wan xar na nga loj li rabbika ngir sa borom del rendi te yàlla tax am na kuy rendi ta yàlla taxul ina sha'ni aka naka aji bañ sa huwa moom dong al abtaru mooy ki njadde njadd abtar mooy gàtt boo xam ne geen ba dafa dagg loolu la ñuy wax abtar waaye nag mu ngi ci namm koo xam ne njirteem du luy continuer du doo xam amul jeexital ci ay ci ay doom ay njirteel tey mag ñu baax ñi fi yaakaar ñëpp seen ngirte yaa fi koo ci lim lim ne maanaam mi ngi soqee koo ci diw boo jëlee Cheikh na Ahmed Tidiane ba tey yaa ngi koy limal ñu fi nekk maam Abdul Qadir Jaylaani yaa ngi koy limal ñi fi ne maam Limaamu Laay yaa ngi koy limal ñi fi ne maam Alaaji Abdoulaye maam Serigne Touba Seydil Haaji Malik koo ca lim diw sët la ci moom mbaa sët sëtaat la ci moom mais Aasi ibnu Waayil mi doon ayibal yonent bi amul loola huwal abtar moo ta yàlla xasru ko ci moom su ko defee kon nag ne ko jullil ta sa borom tax am na ko julli te yàlla taxut waaye tamit li gën a jafe nag mooy rendi te yàlla tax wan xar li rabbika tey nag bëri na ñuy rendi te yàlla taxut ñee ngi rendi di tuural ñee ngi rendi géej gi ñee ngi rendi lu kenn xamut waaye wan xar ni rabbika sooy rendee gàtt na yàlla tax bu fi nekk tamit di saraxe saraxe goo xam ne ni ba nga koy saraxe ab gàtt di ko rendi wëndil nga ko sa bopp bi juróom yoon door koo wëtal gàtt day dee loolu ki ko ki ko sarax bu bopp ba woyofee day dee sax ñoo xam ne ba laa sarax gàtt fu dañ ko fa dugal dañ ko wëndeel a wëndeel a wëndeel fu ne ñu jaar ko fa kon yàlla ne nañuy rendi te yàlla tax bu ñu rendi dara te fekk yàlla taxul inna sha'ni'aka huwal abtar kon loolu mooy suratul kawsar